madame la ministre da nga yàgg def lu baax fii ci Kajoor yàgg koo def fii ci Mérina Dakhar ku ñëw fii gis déjà sa teranga mooy machine wol yi mooy machine segal yi mooy machine tege-dege yi mooy congélateur yi juróom-ñetti congélateur madame la ministre indi na ko tey parce que daf ma mayoon ñaar man duma ko joxe mukk te ñëwul tey mu dolli ci juróom-benn muy juróom-ñett madame la ministre na sakkal dal dëkk yi soog a am courant laa koy jox su ko defee jigéen ña liggéey ci ñuy sampal te yeggagul. bu paree ma seetuwaat madame le ministre ñu indi leen ay congélateur parce que jigéen ñi ku jàppale rek ñu dem gàcc ngalama monsieur le ministre de l'emploi de la formation professionnelle ah bis bi sa bis la parce que li ñu fi dajalee tey li tubaab di wax le cœur aujourd'hui de nos préoccupations yàlla def na sa département président jox la ko wóolu la dama liir tey ci benn journal ñu ne le ministre Dame Diop dafa bawoliser son ministère ah man ne loolu de jaaxal na ma ndax démb Saloum la yendu jaar siin ca Fatick tey mu yendu Kajoor bu subaa mu dem Ñaaning dem Ndoukoumane ma ne vous avez sénégalisé vous avez sénégalisé la fonction ministérielle sama xarit moo ko doon wax de ci journalam la génn Mamadou Omar waaye tey juum na ma liñ la jox yaa ngi ko bokk ak Sénégal gépp di ko yóbbu fépp di ci sedd ñépp damay wax ne ndaw Mérina Ndaxaar li ñu soxla mooy ku leen accompagner ci formation professionnelle parce que jàng bi am baccalauréat doyul sa bopp dina ubbeeku di nga am benn niveau d'instruction mais li ñu soxla mooy des formations professionnelles pointues pour xale yi mën a jëm créer def même auto emploi di liggéey di jariñ seen i njaboot di jariñ seen kër Voilà le véritable fond, le véritable problème qu'il nous faut prendre, saisir à bras le corps et résoudre te ministre loolu yaa ngi ci kon xale yi meri ndaxaar ñoo ngi lay talal loxo à travers toutes les structures yi am pour nga jàppale leen ci formation damay wax ni cours yi ñu wax ci Sénégal yépp boo demee rue 22 wala nga dem Ngaye doo génn doo génn. kuure deg kuure joor kuure njawar kuure mbataar gàtteeñ waaye ñooñu la bu ñu amee formation ñu taxawu leen ñu am li nga xamee ni tey Sénégal indi la leen ko mooy courant yaatu moom la président gis ba dugal ko ci ndëkk yi te féppay mat ma wax leen ko tey mais lu ñuy defa ci rue 22 di fa xat-xatlu fii la ñuy toog di liggéey di jariñu di ñaq di jaayi parce que nag kuy jaay dem fa marché ba su ko defee ñu dem dakaaru jaayi ko fa parce que marché ba fa la gën a rëy parce que le marché c'est la rencontre de l'offre et de la demande fu ñu daje rek marché am na fa kon tey am nañu yaakaar bu baax à travers les structures qui composent votre ministère à travers la forte mobilisation yi nga xamee ni def nañu ko ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoo ngi am yaakaar ci ni li nga ci war a def yépp incha allah di ngeen ko ci def maa ngi ubbi rek pour dalal sama gan yi wax leen ni fii seen kër la Pape Dieng bi mu ñëwee léegi dama ni ko tey de moom invité wu ma la invité la kat nday Saly laa invité yow nag bu la neexee nga gunge ko mais en réalité kenn mënul tudd Pekes te tuddoo mairie Ndakaar kenn mënul tudd mairie Ndakaar te tuddoo Pekes moo tax yëf yi mburoog soow la rek <laughs> Basiru mburoog soow la rek mburoog soow nag bu ñu amee gloire yaa def ci mu gën a neex <laughs> Basiru je te salue à travers le conseil départemental de Thiès. mais à travers aussi ton leader, le président Idriss Seck. Je te salue et je te dis bonne arrivée chez nous avec les compagnons qui t'accompagnent. ngeen may ma rek ma nuyu eh, mbokk yi fi nekk te yi suma xarit nag te xarit moom il faut nga beral ko loxo xam ngeen ni su may wax fii courant Mamadou Kemas Ndiaye nekk fii ale loolu dina ma may nag ma nuyu ko nag xam ni Mamadou Kemas moom wax dëgg yàlla suma xarit la parce que daf may jàppale rek foo xamee ni kenn du ko fekke ba ma gisee directeur général Sénélec mu naan ma léegi nu may def ak yow ma ni ko déet boole ma ak Kemas rek man daal boo amee soxla rek naa ko wax Kemas bu Kemas ñëwee daal ñu la ay mero wax jàppal ni ay mero wax su ñëwul nag jàppal ni du man kon Kemas maa ngi lay nuyu di nuyu la gendarmerie les forces de défense et de sécurité les chefs de village qui son présents les chefs religieux ma leen koy wax léegi bi ngeen waree ñëw fii maam Thierno dafa wax doomam sëñ Basiru Mbakke ni ko gan yi nga ay meeru di am nañu añe suma kër ni amul lenn loo ciy def ñoom ñëpp nañu dem añe ji suma kër kon madame la ministre monsieur ministre na ngeen xam ni monsieur le directeur du cabinet xam leen ni tey maam Thierno moo leen invité añ fii ci mairie Ndakaaru di nuyu la Croix-Rouge l'association des handicapés avec la loi d'orientation sociale ameel nañ leen njukkal am na fu ñu leen war a mën a jàppale ba ñun itam li ñuy def ngeen gën ci feeñ ngeen gën ci xarañ te incha allahu rabbi maa ngi invité ministre yi bu ñu ñëwee fii ñu wax li nga xam war nañ leen ko mën a defal pour ngeen gën a mën a feeñ ci mbir mi jigéen ñi nag jot nañu fanweeri million ak téeméeri junni ak ñaar fukk wax leen rek bu du amul wax leen ñaar fukki million ak juróom-ñeent ak juróom-ñetti junni moom la usmaan indi bu ko tegee ca loola muy juróom-benn fukki million du noonu man manoon naa calcul de ba bay jàng école juróom-benn fukki million yooyu du génn mairie Ndakaar ci jigéen yi lay yem. madame la ministre loo fi indi ci bagage dina dem ci jigéen ñi bu guddee ma seddale ko bind list bi jox ko madame la ministre ni ko dëkk bii ak dëkk bii ak dëkk bii la dem te bu ëllëgee fu courant tàkk rek dëkk bu courant tàkk rek madame ma ni madame la ministre na congélateur bi ñëw kon ñi am am nañu mais ñi amagul nañu xaar bu ñu bësee courant bi rek nañ ma laaj congélateur bi fu ma mën a nekk ma indil leen machine yi rek waxuma ko machine yi dañu ñëw rek madame la ministre nañ ñëw jigéen ñi di liggéey di liggéey yàlla nañ yàlla defal jàmm ci loolu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp am nañu waroon a ñëw mënuñu teew ñi leen teewal maa ngi leen di nuyu mooy la député Yaye Diallo ak le député Morkan Ndiaye dañuy yónni ay délégation mais waroon nañu teew mais ku nekk da ngay xam ni day am jamono mu xat am ngant ñëw bu ngant ñëwee nag da nga koy nangul sa mbokk jullit en tout cas aujourd'hui je suis très fier d'ouvrir ce forum économique forum économique sur lequel nous avons travaillé les jeunes Mérina Dakarois et moi, ensemble, mais dans la main, avec la participation agissante du Conseil national de la jeunesse, pour que nous puissions définir un programme qui est un programme cohérent que nous avons présenté au ministre afin qu'il nous appuie pour que dans le cadre de la politique du président de la République et dans le cadre de son programme spécial Xëyu Ndaw ñi Mérina dañuy xam li nga bëgg loolu la ñu tàmbali tey dinañu recenser xale bu fi nekk ku war a am formation ñu ni la yow lii nga war a jàng ku am métier ñun la bu ñu lay yokkal sa métier fii lañ la koy yokkee ku war a am matériel ñu jàpp ci Dame Diop dimbali ñu jox la matériel nga liggéey koo xamee dafa war a am financement ñu jàppale la ba nga am financement. maa ngi interpellé d'ailleurs le ministre de l'élevage à travers son directeur de cabinet pour que fonds yi xamee ne am na ko. mu jox ñu ci parce que fii dañuy sàmm dama bëgg bu ne balaa tabaski ñu indi fi 30 million financé ko ñi nga xam ne dañuy def opération tabaski ak ñi xam ne dañuy yor jur gi mën na nekk ñoo ngi koy wax bu leen jaaxalee jox leen ko IMSEC mu jox ñu ko wala ngeen jox ko Babacar ñun lu ngeen ñu jox dina IMSEC ñun bu ko defee ñu dugal ko ci réew mi te lu ñu leen leb dinañ ko fay maa leen ko wax lu ñu leen leb fay ko. kon nag fii kajoor la fii bu kajoor la bu mettee dañuy wat waaw nit ñi jom seen jom moo leen gënal waaw ma ne dam dama dama ne dama ne ñoo ngi fii kajoor dañuy gisante waa jigéen ñii ay boroom jom lañu lool leen jox ñu delloo la ko jàppale leen leen ñu liggéey loolu lañu soxla ndaw ñaa ngi nii il faut leur donner une je rends hommage à ces jeunes cadres qui sont venus vers moi pour que nous puissions travailler et améliorer les conditions de vie des populations mérino-dakaroises. Je ne vais, je vais pas les citer parce qu'ils sont nombreux, mais je peux en citer quelques-uns. Baba Karsar, Osseinou Fall, Ngoude Diop, ainsi de suite, le jeunes de, de Gateng, Sec, qui, est, qui a une maîtrise en, en, en, en sciences économiques, en gestion bancaire. Toutes ces personnes pâtées. Mais c'est des gens formidables qui nous ont appuyés, qui ont travaillé avec nous et qui ont mis tout leur engagement dans le travail que nous sommes à faire. Je suis devant vous, mais je ne suis pas devant vous, je suis avec vous, parce que je suis prêt à être derrière vous demain, Inch'Allah. damay xàll yoon wi rek boroom juróom medd fukkat ak juróom lu mu la wax ku topp ci moom lu rote ci moom yaa koy far lu rote ci moom yaa koy far waaye nag ku fëtal ay ku fëtal dégg dina la jam doo yegg ñëw leen ensemble li yor ñoo ko bokk ngeen ñëw ñu ànd liggéey ko ngeen di joxe seen xalaat may joxe suma xalaat le maire adjoint est là le conseil municipal est là ñu ànd liggéey renouveler le conseil municipal changer ko renforcer ko dynamiser ko pour que ensemble nous allions vers des victoires de demain je voudrais maintenant terminer pour rendre hommage à son excellence le président de la République le président Macky Sall l'homme de la vision et de l'équité territoriale, l'homme des investissements structurants, l'homme de l'accès universel à l'énergie, l'homme de l'accès universel à l'eau, à l'hydraulique. Je voudrais lui rendre un hommage mérité. Parce que si nous c'est parce qu'il a une vision claire, un plan Sénégal émergent clair, un plan d'ajustement, un plan d'ajustement prioritaire, euh, accéléré, qu'il a mis en œuvre après la Covid pour qu'ensemble nous puissions gagner les batailles de demain. waa Kajoor maa ngi leen di sant di leen gërëm aw ma seen pay waaye lu mel nii nag mosu fi am de tey comme am na fi tey nag na ñu fexe ba ëllëgee bu ñu defee conclusion yi na jeexital ci ñépp ba ku nekk gis ci sa bopp xale yi dama bëgg ngeen jàngi métier ñu jàppale leen ngeen liggéey faj gàcce yi nekk ci seen biir kër yi seen baay li mu daan def ngeen yanu ko parce que ku sol lu baayam mu jot ko sëkk war naa def li baayam di def foofu rek laa leen di woo jigéen ñi moom du ma leen tudd parce que njaboot lañu bi may présenté léegi ndey sal dama ne elle est mère elle est épouse elle est épouse elle est mère elle est sœur elle est de surcroît ministre kon xam na li xew bi muy def les calebasses de l'émergence booba yi xewul elle l'a xam nga nit kii li muy def nga nangul ko ko du wàññi dara sa cër madame la ministre félicitations waay monsieur le ministre Dame Diop félicitations vous êtes l'homme de la situation et on va cheminer ensemble ci kàttanu yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu